Euh, coach coach Pape Mbaye ah coach coach Parcelles lañ mën a wax ah, parce que boo xoolee jàmbaar ak Rock Énergie yëpp benn la ah kii mooy coach le roi des arènes moo ko coaché ba mu nekk roi des arènes. mu félicité la quoi. wax nga dëgg wax nga dëgg tey seen seen xarit seen frère papa. <coughs> waaw xam nga dafa am lu ñu woote parcelle. Hmm. ñu koy wax cent pour cent parcelle. Hmm. moo fi sunu teewaay tey. Hmm. donc champion bu ci am combat. day ñëw fekk si la. jàppale la sa préparation. defaloon moo te sunu teewaay tey. dinañ bu góor a soog bu daam seen. Euh, parcelle mbooloo ñëw nañu. Hmm. Euh, Dóor Dóoraat ñëw nañu. ak yeneen écrits yu bari ñëw nañu Dóor Waar. Hmm. ñoom ñëpp ñu ngi fi. Hmm. ak école de Manga pour 100 parcelle bi moo fi daje. daa mel ni ki yëpp dañoo seey nekk benn. no pas seey kenn ku ne écrit mu ne mi ngi fonctionné ñun bu li jeex dañuy dellu Rock Énergie kon ne liggéey suñu moom yëpp a seey nekk benn. waaw dañuy dajaloo parce que dañu am ay combats yu décisifs yoo xam ne rawatina PAM di capitaine bi. capitaine bu 100 pour cent des parcelles. ñun naan Papa Sow mi ngi ci yoonu retraite. combat bi yoonu retraite la. waaw non ku nekk xam nga làmb moom moo yaatu ku nekk am nga sa xalaat waaye xel mi ngi liggéey li war a liggéey xam ne na ne bu ko defee bu demee ci làmb ji yàlla may ko ndam mi ngi koy def mais mais yaakaaru leen ni sur sur le plan physique est-ce que Siteu gënul euh, am benn euh, fraîcheur physique que Papa bi nga xam ne la ñuy wax ne moo ko mag moo ko jiitu ci làmb presque mi ngi ci fin de carrière. xam li am solo ci sport mooy de vie. Hmm. boo ko amee nit ki di ko mag foofu sax boo ko ëppee hygiène de vie bu ngeen jàkkaarloo du feeñ. Hmm. li am solo ba am solo mooy li nga war a liggéeyal li nga xam ne dal na sa xel tey jii mu leen boo ñëwee boo demee di nga mën a appliquer sa kaw adversaire loolu rek moo ci am solo te mi ngi ci waaw. est-ce que handicap du am ci côté taille bi. ah waaw parce que gis nañ yenn combat yoo xamante ni Papa Sow ñi ko sut longe daf ci amoon tuuti ay jafe-jafe. ah mais Papa Sow boo xoolee ñëpp ci ñi ëpp ci ñi ko daan ñi mu daan. Mm-hmm. mais ñoo koy sut. ñoo ko sut ah, waaw. waaw mm-hmm. ah, loolu bu fekkoon ne ci loolu lay calculer kon du egg fii mu egg normalement. Mm-hmm. ñun fekkee nañ carrière am début ba fin ba tey jii ñu ngi suivre carrière am dara umbu ñu mais Papa Sow bariwul mu bëri adversaire bu mu toll lool sax. parce que moom taayam ci boobu handicap la rek ci làmb. mais quand même yëgoog lu ko yaramam parce que gis ngeen li mu wane ci lamb waaw. mais alors combat bi tey boo doon wax ne du ma la wax sax nga wax clé bi quoi du ma la wax nga wax clé bi parce que loolu moom ça di se dit pas kenn du ko wax. tey euh, boo doon boo leen doon am loo xamante ni moom ngeen di wut ci côté préparation si lan ngeen focaliser wu physique ngeen focaliser wu wala xeex wala jàppante bëri. xam nga géew dafa yaatu. te la cee fekk lépp da koy fàggu. Hmm. muy tactique technique cardio bu baax physique mën a bëree temps bi lu mu laaj. Hmm. nga yor ko. Hmm. loolu moo ci am solo. waaw mais di focaliser wu ci lenn wala ci amul solo. mais lenn moom ala kulli aal dana am. parce que question piège laa doon def noonu xeex moom par force dana am ci combat waaw mais bëri dóor kay bu ñu ko waxee bëri la ak dóor kooku kay mënul ñàkk waaw. mais xeex bi moo ciy ëpp kii bi moom xeex par force neex xeex naqari xeex. waaw fi ñu toll kenn ku ne da ngay imaginer ñoom ñaar bu ñu tajee ci géew lan la ñu war a def. Oh. ñi xeex bee ëpp ñi ne bee ëpp. Oh. loolu yëpp ci imagination la rek. Mm. mais nekkul loo xam ne tey jii wóor na kenn. Mm. l'essentiel mooy kenn ku ne boo demee aussi di nga taxaw xool lu la sam xel may nga def ko mm. waaw. yaa ko dama la pose posé ay questions. ma yëgal ma yëgal samay nelaw waaw waaw nga yëgal say nelaw ay question piège laa la doon posé <laughs> mais Pape Mbaye moom. <laughs> jaajëf. aja mi ngi noonu euh, coach Pape Mbaye maa